quoi les objectifs du du f f ay objectifs am ñu ngi koy tënk ci benn charte boo xoolee quatre ponk la ñu déggoo euh, et il faut dire que c'est quand même assez ñun ñi nekkoon M23 à l'époque euh, dayo bi F24 am M23 amu ko woon à l'époque en termes d'ampleur en termes d'adhésion euh, de différentes couches de la société de la classe politique assez diverses d'ailleurs ñu ci ñenn ñi naturellement bokkuñu gis-gis am nañu ay divergences am nañu même ci biir société civile bi. looloo ko nar a rey mais même ci biir. loolu mooy danger pas forcément pas forcément tout dépend même ci société civile bi boo xoolee entre Y'en a marre RADDHO Ligue sénégalaise des droits de l'homme FRAPP ak d'autres même dans cette grande famille de la société civile il des différences en termes d'approche ak yu ci bëri mais n'empêche ñooñu ñëpp dañu dañu dañu décider de taire par ces divergences là et d'être ensemble autour de cette plateforme qui regroupe aujourd'hui près de cent quatre-vingt-dix euh, organisations. mooy poison bi politiques société civile et puis ay personnalités indépendantes. le mélange n'est li ñu li ñu déggool en fait le Sénégal n'est pas homogène. Ouais, mais ce mélange là il est euh, explosif. mais mais mais ça reflète juste société au Sénégal euh, boo xoolee même kër gi c'est pas si homogène que ça amul fenn fu homogène c'est des Sénégalais ku ci nekk am na ci fi ngay yëngu am nga gis-gis mais ñun ñëpp ñu am ay objectifs autour de quatre points mooy premier bi mooy la question de la troisième candidature bi nga xamante ni. Euh, depuis jamono yi jàmm gën troisième mandat ci njëkk à travers une lettre à l'époque société civile bi bi mu initié jàmm gën troisième mandat ñu ñaanoon président euh, Macky Sall pour que mu mu mu épargner le Sénégal. donc yéen jot ngeen ñaan ci. à l'époque oui jàmm gën troisième mandat. xam nga à l'époque il y la société civile. Mm. moom moo commencé woon avec jàmm gën troisième mandat. avec ñoom Mbodj ñun et d'autres donc dans ce cadre premier acte bi ñu posé c'était une lettre qu'on a adressée au président de la République pour ñaan ko mu épargner Sénégal. Euh, de ce qu'on a vécu en ñu gis un peu partout en Afrique saa ñu yëkkatee mbirum li muy indi mais malheureusement réponse bi biñ biñ ci am mooy. Euh, le foisonnement des meetings d'investiture Euh, du président euh, donc ñuy dox di dox mu am beneen initiative porté par euh, euh, d'autres mouvements citoyens et la classe politique donc à un moment on a compris que fale fallait ñu toog ñu xool dans quelle mesure la ñuy mën a ànd dans le cadre d'un front à l'image du m donc da wax ne ñeenti ponk moom moo leen euh, donc troisième candidature troisième candidature bi nga xamante ni jàmm gën moom la porté woon à la base mais ñu gis ni aussi tey réew mi fu mu toll munoo am kuréel bi ni mel te doo wax ci mbirum liberté yi c'est-à-dire toutes ces détentions yenn prisonniers politique yi yenn activistes yi journalistes yi nga xamante ni ñu ngi leen incarcéré leneen li aussi mooy kuréel bi ni mel mënul yëngu tey ci Sénégal te du jël en compte question élimination candidats yi pour aller vers des élections qui soient inclusives mu bañ am galgal que voilà sénégalais yi ñu offrir leen le maximum d'alternatives possibles et que ñu mën a choisir seen prochain président euh, Macky Sall bañ a bokk et que Benno Bokk Yaakaar am un candidat qui soit valable et qui compétisse avec tous les autres sénégalais yi ñu tànn beneen bi mooy mbirum parrainage bi parce que parrainage bi dans l'esprit Euh, kenn bañu ko woon mais dans l'application c'est c'est un nébuleux bi nga xamante ni jàppoon nañ ni il fallait que mu bokk ci ponk yi pour que ñu mun ko régler donc c'était ça ponk yi nga xamante ni moom moo moom moo moom moo moom moo ñu tënk ci biir jàmm gën troisième mandat maintenant am na beneen ponk boo xamante ni c'est assez euh, important mais du ponk bu ñu vulgariser mooy apprendre des erreurs du du du du M23. M23 dafa regrouper woon classe politique bi société civile et tout le monde donc le président Macky Sall turu M23 sax ci moom la jóge euh, ci ay waxtaan. et donc ci biir loolu ñi ko sëkkoon amul woon benn benn chart bu tënk classe politique bi parce que tey on peut dire que c'est possible je dis pas que loolu moo am. mais c'est possible que le prochain président de la République du Sénégal que il soit issu du du du F24 il faudrait quand même que ñu am ay waxtaan loolu moo waral dialogue du peuple bi dañu am ay waxtaan yu am solo ci ay ponk yu amal sénégalais yu solo ñu am ci ay yuñ ci arrêté après de large concertation avec les sénégalais ba nga xam ni bépp euh, acteur politique bi nekk ci biir F24 euh, da ngay engagé wu à travers la signature de cette chart que yenn question yu essentielles yi nga xamante ni jóge na ci dialogue du peuple yooyu et que mu pro mu préoccuper sénégalais yi ci tëgginu institution yi ci justice bi sur la gouvernance euh, troisième candidature waxatuñ ko sax mu am ay engagement yi nga ci jël yi nga xamante ni bis bu euh, yàlla defee euh, sénégalais yi tàbb la nga doon président déjà sur les cent premiers jours yow xam nga ci li nga war a jublu et puis au-delà aussi xam nga yan priorité la la sénégalais di xaar ñu jàpp ni loolu am na solo parce que M23 su mbax la woon c'était important ñu mën a xeex bi mais après quand le président Macky Sall a gagné euh, tout le monde est parti il y avait rien comme euh, comme comme contrainte rien li nga xamante ni tënkoon na ko et et et et xalaat nga ne euh, la